alima ku tiim kuy sukuraat nga koy xool ba mu ni janjang dee ku la waarati yow la neex tiim yaay di ko xool di ko xool mënoo ci dara di ko xool ba mu dem waaye xaaral tuuti alima malaakal mawti nabi ni ko demal nga ni yàlla na ma may sama xeet képp ku ma bëgg ma yóbbaaleel la sa quatre-vingt-dix-neuf sukuraat ma yóbbaaleel la ko man yonent bi yow booy dee yóbbaale benn nabi baax ak ni ko wax ni loolu la sukuraat méttee yow ak ni sukuraat méttee mu wàññil ñu yàlla maa ngi lay ñaan sama xeet képp ko ci bokk may ma ma yóbbaale quatre-vingt-dix-neuf am. ak xeet gi ni mu toll. ak xeet gi ni mu toll moo tax di muy sukuraat sukuraat bi day toog ba ci yàgg mu ni yaa Aïcha ci biir sukuraat. sabbit nil maa inna fil mawti la sakaraatun Aïcha jëlal ndox nga sotti sama kaw dee mettiwul sukuraat moo metti. oh. Aïcha nee na booba maa ngi jël bopp bi teg ci sama pooj bi waaye dama koy rocci daw jël ndox alima def si morso. bu ma ñëwee bu ma koy def ci jëbi tàngoor bi nekk ci sukuraat bi dafay mel ni feer bu saas nga ko jaarale ci ndox ni ma naan boobu muy def nee na ma koy nëpp nëppal mu naan yaa Aïcha yow Aïcha sabbit nil maa ma ndox ina fil mawti la sakaraat te lu yàlla bind moo ci gën ne toog ba ci yàgg rek booba sukuraat baa ngi yéeg sukuraat baa ngi yéeg sukuraat baa ngi yéeg ba ci yàgg muy muy joxoñ loxo bi nii di lox di joxoñ Aïcha nee na may topp loxo bi nakate nakate socc bi doon feeñ ci kaw boobu la xelam nekk naa ko jox mu socc Aïcha nee na may xool di ko laaj bu ma ne ko ndax nangam mu def déedéet bu ma ne ko ndax nangam mu ni déedéet mu ne mu laaj ko ndax socc bi nga bëgg mu ni waaw Aïssa nee na maa jël socc bi dugal ko ci gémmiñam mu wadd ma roofaat ko ci gémmiñam mu wadd nee na booba socc bi mu ngi bëgg ñu yéeyu ko kanam gi nooy pour mu soccoo ko na man ko ma yéyal nee na xaw a muuñ ma yéyal ko socc bi dugal ko ci gémmiñam mu wadd nee na mu xaw a téye sama loxo yëkkati ko nee na man yaa ah kon dafa bëgg ma soccul ko bëñi Aïssa nee na ci laa commencé socc ma dégg muy wax aleykum bi salaati aw ma malakat aymaanukum ay waay di leen julli ñi ngeen njaboote yërëm leen leen moo xam say employé lañu moo xam jànk bi nga yor ci kër gi yonent bi nee na muy wax loolu aleykum bi salaati dee leen julli aw ma malakat aymaanukum yërëm leen ñi ngeen njaboote nee na malaakal mawti rocci ruugi Aïssa nee na maa ngi socc yonent bi rek dégg mu naan aleykum bi salaat ay waay di leen julli bu ngeen bëggee dajak man yowmal xiyaam aw maa malakat aymaanukum kenn ku ne ci yéen koo yilif na nga ko yërëm moo xam jànk bi la moo xam employé bi la moo xam chauffeur bi moo xam gardien bi la yonent bi nee na koo ci yilif muy dundee sa wërsëg yërëm ko Aysa may bomb ba ñi ci kaw ndeysaan mu wax loolu may bomb ba ñi ci suuf muy muñ di wax loolu may bomb nday joor bay dem càmmoñ nee na ci laa dégg ruu gi rot mu ni jalaala rabbin rafia la ilaha illa allah tudd naa borom bu màgg Aysa nee na dafa wax loolu rek dawal ñaari bëti ñaari piru bëti nday joor la ilaha illallah xool benn côté oustaz euh, euh, euh, temps bi léegi mu xooj ñu ndax ñu ngi ci treize heures vingt cinq li ñu bëgg wax foofu yëpp ci demuk borom barrière or ba ci met na oh. xaju xaju fi mais dama bëgg rek ñu ñëw juste ci ay seede yoo xam ni dañu koy dégg ñu bari di ko seede ci jigéen ju baax ñi di ajot ki ne Diouf Diaga bokk na ci ngërëm li nga xam ni moom la ko boroom këram gërëm ba def ko ci way àdduna yépp dégg ngërëm loolu ci way ngërëmul borom kër lu muy def ci soxna alima jigéen ñeent ko jëriñ eh, ci àddina ak yomal xiyaam alima way wi dafa ñaari chose ci ne bi ma ko dégloo mooy jural nga ma ay naaru góor naaru góor ak ay futanke futanke man nag bokk na bi ma ci marqué nangul nga ma ni fariñ nangulee boulanger xam nga luy way mooy diine ji hmm? diine ji waaw nga mel ci diine jortu naa ni boo doon góor góor xam nga lu tax oh. hmm. alima tëdd ba guddi papa coon déggoo jàpp leen mu ngi ñëw muy màndikat yàlla suturaal na ba jur <laughs> jàpp leen ko sàcc la yàlla def na ba jur woo ko mun ko jura nga may ay naaru góor ak ay futanke njortu naa ni boo doon góor di nga jël yoonu sufiyanke di nga jël yoonu xam nga lu tax wallahi lu ma lay wax dëgg la mhm. nee na ma Mouhamed man affaire yi waxi détail politique day métti sama bopp mënuma ko déglu mosuma ko déglu mosuma fa dem dégg ko muy déglu lu nduroog àdduna looy waxtaan ak moom détail yu diine lay doon wala yonent bi mbaa mu yónnee la benn affaire ne la nàngam bi ban jàngat nga ci am di xool yow la nga ciy wax doguma la dégg nañu ci vidéo yi ñu gis vidéo ci internet bi yëpp gis nañu benn vidéo bu Papa Thione naan jaaga euh, du déglu Thione Seck du déglu Waly du déglu Youssou Ndour du déglu Baaba Maal moom ku way yonent bi rek lay dégg sallallahu alayhi wa sallam xoolal loolu ah. sa borom kër seede loolu borom këram moo wax loolu daf ma daan wax ci gémmiñam ni ma Mouhamed bu ma jullee fajar ba noppi dama am benn audio bu ma teg bu ma amaatoon beneen audio bu gën a porte teg ko yàlla nee na waxtaane leen jëf yi nit ku baax confirmation wu ku nekk def sa farata dem Medina defal ko vidéo yónnee ko mu ni loo ma mën a defal ci àdduna li nga ma defal a gën a rëy ci man dootoo ma defal ci àdduna lu gën a rëy lii loolooy audio bi. bu ma ñu wax kay ñëwal ci suñu laaj bi oustaz bu ma amoon beneen dama koy teg fa laa jëm. pour confirmer ko. Mhm. mais gis nga yàlla dafa ni yonent bi dafa ni jigéen. alima pour mu dem aljana ñeentay tax mu dem aljana. mooy. góor a gën a sakkanle yonent bi nee na jigéen isa sallaytil maratu xamsaha jigéen bu dee julli julli juróomam. wa saamat sahraha di woor weeru kooram wa xafisat farjaha wattu péeyam mooy awraam ba kudul boroom këram amu ci wàll mhm. wa ataat zawjaha ak topp boroom këram ñeent yi nee na bu ko jigéen matale daxalal janna day dugg aljanna donc ngërëmal boroom kër bokk na ci li mën a dugal jigéen aljanna ngërëm lu mën a doon ci àdduna mhm. bu ñu la ci kuusu bàmmeel ngërëm yëpp yàlla danaan eskay bu jëkkër gërëmee mu ne aha parce que yàlla nee na waxtaane leen waxtaane leen ki dee yi mu rafet rafetle kon bu nit ñi di wax sa mbaax yàlla mun na wax est-ce que waay sama jaam bi nii la meloon est-ce que waay waaye bu borom kër waxee yàlla ne aha ah bu kii seedee nag waaye te xoolal seede yi ni mu garaawee dafa mel ne dafa xamul ni mooy jiitu ji mu teel koo way bàyyi fi way woowu nga xam ne du fay ba yow mal xiyaam wallaahi ci biir way bi dégg nga mi ngi koy wax ni ko mënoon naa lay tagg ci sa ay baay ak ah, wala say ci sa juddu ci sa juddu waaw mais taggu Sénégal suñu aada mooy booy way nit di nga ko ne di way sa ndey di way sa baay dëgg la mu teg ci dëgg la waaye lépp naa ko ba beneen yoon ci biir way bi wax jikko yi nga làmboo ma gën a gënal wa musuñoo jote lu dul coowal fiiraange te liñ jotee ñoom ñaar kat yàlla sax noonu la mel ndax yàlla baale na mbooleem bàkkaari moom des ku ko bokkaale bu yàlla attanut loolu benn mi def attanu ko dëgg la mu gërëm ko ngërëm loo xam ne dafay des di way moom itamit avant muy dem bu gërëm doomam tabaski daaw tabaski ren fekk di ko fekk biir bàmmeel allahu akbar yàlla teral ko li ma leex mm, semaine bii passé jumaa ji ñu jullee woon moomi bi ma fa delloo am benn takk man ak imaam bi ñuy waxtaanaat dafa ne ma li ma yéem ci ay doomam mooy fajar saa yoo soo gis leen ci biir jumaa ji macha allah Seydina Muhammad doomam moo ma wax ci gémmiñam ni ma bu ma demee ci tudd gis xale bi di góor ñu tuddee ko keneen ku dul yonent bi Mouhamed sama journée boobu day yàqu tëdd rek lay bëgg noo bëgg a jóg hmm? wallaahi ne ma bu ma demee ci tudd gis muy góor ñu tuddee xale bi keneen damay wax lu tax tuddee wuñ ko yonent bi sama journée day yàqu sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci njabootam laa wax de jural nga ma ay naaru góor ak i futaan waali bu amoon xaritam bu am doom di ko ko bëgg a tuddee danaan ko boo bëggee mu neex ma te mu dëggu ci sama xol bi tuddeel ma ko yonent bi kon xanaa entourage am waroon naa baari waali waali waali mm. mais ñoom ñëpp day wax ni doomi nañ leen tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit koo gis alima am na lu muy làmboo waaye yaay jaaga ngërëm li ko coon sekk ngërëm alima ngërëmal yàlla kase la ndax coon nit ku direct la waaw xam nga yenn saa nit dina gërëm nit ndax ñàkk pexe mm-hmm. mais boo xoolee coon nit la ku amul ñaari kàddu nit ku def nii la te itam ki mu gërëm mënoon na koo gërëm nit ñi bañ koo gis ci moom. dëgg la dëgg la. mais li nit ñi di gis ci moom mooy ni mu mel démb damay génn benn meer woo ma. Mm-hmm. ni ma ni ma ni ma hôpital Fann laa doon fajoo. Mm-hmm. Faat Diop laa tudd. Mm-hmm. te maire bi daje naa fa ak moom defe naa ñetti yoon ñeenti yoon yoo xam ni aljuma bu may dem di añi ñun ñaar ñooy daje. toog waxtaan ak meer mu ne ma xam nga lu ñu xamante le ma ne ko déedéet mu ne ma bi ñu rappel sama tur bari ba fa euh, nu mu tudd nday faatu dafa def teg bàyyi ba ma dugg ba génn mu nuyoon teg man xàmmeewu ma ko parce que moom buy dem ci mbooloo day nëbbatu day muuru day muuru nee na mu nuyonte ak man ni ni ko sa ordonnance bi ñaata la mu génne woon ko ordinance mun ko xanaa dafa ànd ak ay rajo maire bi génne woon ko rajo yi lépp environ nekk huit cent et quelques mille yaay jaaga ni ko maa koy lépp jël naa la engagement euh, démb démb bi may génn la ne xaw ma fan laa ko mën a waxe mais lii moom moo ma ko defal te maire bi xam naa ko bu baax ku dal parce que daje naa fa ak moom yooni yooni yooni yooni yoon mu ne ma lii moom moom ma ko defal am naa ci ay nit yoo xam ne am naa ci seede yu ma wóor ñuy yëmbal la dëkk ñuy feneen la ñu dëkk ni muumi doon def alima di teral ay nit noonu la doon jëlee teraanga di leen jox. loolu loolu laa bëggoon wax j'ai comme l'impression que li mu nekkoon noonu ci la euh, xiirtal njabootam ba ñoom itam ci la ñu nekkoon di def lu baax. mais discrètement. Mm-hmm. Euh, euh, Oustaz dañu lay bàyyi nga oh. parce que 13h30 jot na. tooyal na xol yëpp. merci beaucoup walaay tooyal na xol yëpp ñu jotee message de partout ah, baax bi suñu borom xaare ko aljanay firdawsi ah, Cheikh Anta ñu dem fàttali partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy gunge ñu dellu di jaal Sénégal bu baax a baax nag